ne rek ñooy nekk ci kaw tali bi ñoo war a bàyyi xel lépp li nga xam ne rek moom mooy faral di am ci kaw tali bi te li ma xalaat rek mooy daal ñoom seen ni ñu ko war defee am na lu loo xam ne rek des na ca l'observateur ne ko ca Bandian la bi xewee ay bakkan yu ca faatu bokk na ci ñaar ci ay germain yoo xam ne rek ñoom ñoo ñàkk seen bakkan jëwriñ ji ñu dénk kaaraange biir réew mi di Augustin Tine ma ngay xam ne ni daañu ci jël ay matukaay yu am solo des ba tey ci accident yi nga xam ne rek mi ngi xew ci réew Sénégal ak yéenekaay bi di enquête moom ma ngay dellu siwaat ci kàddu yi nga xam ne rek jëwriñ ji ñu dénk kaaraange kaaraange biir réew mi yëkkati na ko démb ca Bandian ginnaaw l'accident boobee nga xam ne rek ñetti doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan a farlu ci seenub liggéey ndax jàpp na ne nag accident yu la ñuy nemmeeku takk der yi dañoo desee def seen liggéey ni mu nga xam ne rek moom la ci jëwriñ ji yëkkati yéenekaay bi ne Jean Baptiste Tine ma ngay ramassé ñepp ñëpp la dal ci seen kaw li mu jàpp rek mooy mbir yi loxol ku ne ngi ci ndax ñii di waa police a ngi ci biir dawalkat yaa ngi ci biir gendarme yaa ngi ci biir naka noonu service technique yi 24 heures yëglekaay ne lu jëm ci wàllu service de contrôle yi ak accident yi nga xam ne rek kenn mënee su koo lim fii ci réewu Sénégal Jean Baptiste Tine ma ngay wokk fay xasan jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi ak sécurité publique nag ma ngay dellu soit ci li mu jàpp ne nag loolee rek moo waral accident yi ma ngay xam ne daal ni police ak gendarmerie nag bu ñu defoon seen liggéey ci ni mu waree rek accident yu bëri yi duñu ko Sénégal li ma xalaat daal mooy seen liggéey dafa des bu baax a baax man nag dinaa fexee xool sama naataangoo jëwriñ bu ñu dénk wàllu finance bu ko defee nag a xool ni ñuy génnee ay koppar yu di koy dugal ci wàllu wi ngir lu jëm ci wàllu contrôle yi nga xam ne rek moo soxal wote yi waaye daañu fexe itam nag ba dooleel leen su ko defee wàllu corruption bi nga xam ne rek moom la ñëpp di ŋàññi ñu mën ko fay jëlee le point moom dellu soir tey ji nag ci accident boobeek na mu demee ca Bandiang ba ñetti doomi aadama ñàkk ci seen bakkan yéene bi ne am na ñeent ñu ci jëlee ay gaañu gaañu ñaar ñi nekk ci état bu doy waar mi ngi xewee ci yoonu Mbour foofee ca Bandian li ko waral nag bokk na ci ñaari woto yoo xam ne ñoom ñoo tase mu di ab camion ak particulier ci saase nag la ñu daal di woo service secours yi rek ñu daal di ñëw taxaw victime yooyee nga xam ne rek ñoom ñoo loru ci boobee accident tribune yëglekaay xëy moom di def bilan ñeel accident yi nga xam ne rek tàmbali na ci biir réew Sénégal yéenekaay bi ne ci diggante alxamis ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet jàpp aljuma ñaari fan ci weeru août atum 2024 ñaar fukki doomi aadama ak juróom ñàkk nañ seen bakkan ci accident yi nga xam ne rek moom mooy amee ci kaw tali bi fukki doomi aadama ak ñaar ñoo faatu ci diggante ngaay ak Kébémer juróom benn doomi aadama ñàkk seen bakkan ci ndulumaaj yi ñetti doomi aadama ab camion faat leen foofee ca Saraya ñeenti doomi aadama ñàkk seen bakkan ca Bandian jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi di Jean Baptiste Tine nag ma nga cay joxar bi baaraamu tuuma dawalkat yi naka noonu ñi nga xam ne rek ñoom ñooy jëfandikoo kaw tali bi waaye ma ngay xam ne nii nag ay mesures yu am solo daañu ko jël ñoom kilifay Sénégal source aane ko jëwriñ ji kay mu toll nii nag ma ngay duut baaraam fi nga xam ne rek foofee teen yi moo waral accident yi di am ci kaw tali bi moom Jean Baptiste Tine nag ma ngay xam ne nii irresponsabilité bi am ci dawalkat yi nag complicité bi nga xam ne rek voyageurs yi am nañu ko défaillance technique yi nga xam ne rek nemmeeku nañ ko ci yenn woto wàllu corruption bi nga xam ne rek moom la ñuy tudd ci wàllu contrôle yi bokk na ci li nga xam ne rek mooy jur accident yi am ci kaw tali bi moom Jean Baptiste Tine nag di xam ne ni ñu amal ab conseil interministériel boo xam ne rek dañu koy jagleel wàllu transport te ñu ci wut ay saafara ci ni mu gën a gaawee àddu ci beneen yëglekaay mu di Le Soleil wax ci journée de mobilisation citoyenne bi nga xam ne rek daañu ko amal tey jii ngir jëmbat ci ay garab ñetti fan lay doon ba ñeenti fan ci weeru août daañu ko amalee xew-xew yi nag foofee ca diwaan bu Touba yéenekaay bi ne njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye nag moo fas yéene dalal ba sub jëmbat garab bi nga xam ne rek jàpp nañu ko dimanche bi Le Quotidien yëglekaay xëyee tey jii nag lu jëm ci condition de vie yi nga xam ne rek moo soxal ménage yu bëree bëri ak ndóol gi nga xam ne moom moo leen di yoot yéenekaay bi xëy addu jëmale ci rapport bi nga xam ne rek moom la ci waa ANSD fësal rapport boobee di xam ne nag ne mbir yi ma ngay di jéggi dayoo lu war a toll ci téeméeri junni ci ay ménage nag boo moytuwulee ndóol gi dina leen dab fileeg ñeenti at Sud Quotidien xëyee tey jii ci grand toxaal bi nga xam ne rek moom war na ko amalee ci assemblée nationale yéenekaay bi ne fi mu toll nii opposition bi nag ñoo fa yéene jàkkaarlook Ousmane Sonko bu fekkente ne proposition de loi boobee nga xam ne rek dañu ko doon amal ngir soppi lu jëm ci règlement intérieur bu assemblée nationale bi daa xam ne nag ni déclaration politique générale bi daañu ko defee ci assemblée nationale jëwriñ ji faaw rek mu daal di dem ca ne rek ñoo fi nekkoon ci ancien régime bi te su boobaa nag risque bu rëy lay doon ci Ousmane Sonko ndax mën nañ caa defee li nga jeexale yëglekaay yi ak wàllu tàggat yaram Jeux olympiques yu Paris 2024 bi ne champion d'Afrique bi nga xam ne rek moo di Sali dañ koo éliminé Marie-Josée Talou nag moom moo écrasé ñëpp ci 100 bi Maroc jamono ji nag moom moo jàll ci demi-finale wax ci lu soxol IFOA ci u yi Sénégal mi ngi ci groupe de la mort